waaye léegi cuun bi ñuy njëkk waxtaan da ni ma sax am na ñoo xam ne xolu kañaan mën na leen a jàpp ba ñu firee bay boobu neneen looloo am déggoo li baax du ma tur waaye ay sénégalais lañu am na ku wax ci rajo bi leen xaada dëkkal ujóorul ma saaliwu bi tey wal jës bi wa inni saaliwu am na koo firee neneen jànkanu arab bu réy la ci réew mi bu ñëpp xam man ba ma ko déggee ree damaa jàpp waaw ma xam ni liy wax ci keñaanu doomi soxna moo am man jànguma baax xaw ma siin biñ ko waxee firil ma ko dama koo jëli ma bind ko bindulu ko ci caractère arabe mu doon benn carte bu moomu ca ban ba sëriñ abdoulahat jaxate moo yoroon jàngaleem ci biir kër sëriñ saaliwu moo daara yi rakki ba tar moo yoroon daara yi moo daan wëri daara yi sëriñ bi moom la daan yóbbuloo kaamil yi kookee ji suba ci àddina ci senegal gii ku di moo la man yaa ko man sëriñ bi kër da cee bari woon le moom moomee man jàngum arab sëriñ bee ma dimbali ma xam li ñu xam te jànguma ak Abdallah Fahmi mii te man na laa tontu la léegi moom la sëriñ moom mii moo ni sëriñ Saaliwu sëñ Béthio mii de jaaxal na ma moom day bu wax ak yow day mel ni ku jàng lool te moom jàngul ma di la bëgg a laaj Mbàkke lool nu mu deme mu ngi nii on peut lui donner la parole tout de waa Mbàkke loolu nu mu demee Serigne Saliou ni ko waaw yow ku la jàngal mu ne ko maa ngi jànge ci bufti sàngam maa ngi jàngee université sàngam maa ngi jànge fii maa ngi jànge faa Serigne Saliou ni ko yow de da ngaa bokkul ak béccu ab xam-xam yow nit la jàngal béccoon ngi yàllaa ko jàngal mu ngi nii waaw waaw na la ni mu demee kii moo la mën a wax waxi Serigne Saliou jë na la wax nu mu demee comment ça ça s'est passé on avait on a discuté beaucoup sur euh, ce vers l'inqadatul ujur wal masalih bit-tayy wal jazb wa an-nisalih et un jour on était chez Serigne Saliou et j'ai dit à Serigne Saliou le cheikh il affirme toujours que ce vers l'inqaadatu l ujur wal masalihu bu tay wa jadbi wa inni salihu ce que Serigne Touba signifie dans ce vers explicitement qu'il est euh, Serigne Saliou qu'il est vous et il m'a demandé ce que j'en pense dans la littéralement en langue arabe est-ce que ça peut euh, correspondre et je lui ai dit que il y a rien qui peut contredire en langue arabe si l'intention est telle de l'auteur parce que inni salih ça veut dire je suis un bienfaiteur littéralement le vers l'inqadatul ujur wal masalih m'a été accordé les salaires et les récompenses bit-tayyi wal jadbi par l'attraction et la contraction du temps l'attraction divine et la contraction du temps en, en, sans effort wa inni salah et je suis un bienfaiteur en langue arabe mais l'auteur peut signifier wa inni salah il peut signifier sini salut c'est à la discrétion de l'auteur donc ça ne peut ça ne contredit pas linguistiquement je dis à ah, sini comme ça je dis mais sincèrement tous ceux qui sont avec le cheikh ils n'hésitent pas à endosser la l'explication du cheikh on pense que vous êtes effectivement sur le Alors Sirine i il a demandé à Chouaïbou Cissé de lui apporter un livre. Il a apporté un livre, Chouaïbou Cissé, il a et Sirine a pris le livre, il a ouvert directement, son consulter. Il a ouvert directement. Et il m'a dit, lis. À haute voix, j'ai commencé à lire. Celui qui lit ces lignes ou les transcrit, même à partir d'une copie, et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui-même demain. Alors quand c'était en arabe hein? Alors quand j'ai fini, Serigne Saliou dit ah ça c'est un miracle. Parce que ce n'est pas ces mots que je voulais te signifier, mais ces mots-là explicitent mieux ce que je voulais te signifier. Et il a appelé Chouaïbou Silla dit d'apporter l'autre livre il a apporté l'autre livre il l'a ouvert sans consulter il l'a ouvert il m'a dit lii c'était un autre un autre vers li dunya al masaliha wa bil masalihi uynu saliha monde m'a accordé ses bienfaits et par ses bienfaits j'assiste Salah ah j'ai dit c'est un salut alors il n'y le c'était le mardi le samedi le euh, Cheikh a fait un, euh, euh, un à Mbour devant la maison de Serigne Saliou et il a relaté cela il m'a donné la parole pour pour parler de cela comme il a fait aujourd'hui alors j'ai expliqué exactement comment ça s'est passé j'ai dit donc Serigne Saliou a dit subtilement que celui qui ne comprend pas cela et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui-même demain. Il aura raté sa chance. Et, et, et, on est retourné chez Céline Salou le mardi et je lui ai raconté. Je dis, dans le chant, le chef m'a donné la parole et j'ai expliqué comme ça s'est passé et j'ai dit que, explicitement, donc vous dites que celui qui n'a pas assimilé cela et ne s'y conforme pas n'a qu'à se blâmer lui demain. Alors Céline Salou dit, tranquillement. Jërëjëf oui oui attendez attendez euh, s'arrête pas là il lui a demandé il a demandé à Serigne Saliou lui-même lui qui va vous le dire parce que quand il n'a pas compris mes propos que je tenais là et ailleurs ça l'a étonné lui qui a appris le Coran et l'arabe qui était d'arabe comment se fait-il que Cheikh Béthio avance des pensées alors que il n'a pas fait le Coran ni l'arabe qu'est-ce qu'il t'a répondu c'était <laughs> une autre fois on était à Helcom parce que avec le Cheikh je passais des nuits des fois jusqu'à 5 heures du matin on parlait de ces réalités parce que ces réalités sont des réalités métaphysiques si on les interprète ou on les comprend sur le plan théologique il y a équivoque parce que la théologie a des normes dans le tawhid Allah le prophète l'être humain le monde c'est des réalités distinctes et donc on ne peut pas interpréter cela ni comprendre par la théologie la théologie a ses normes mais sur le plan métaphysique il y a unicité il y a qu'Allah Allah est la réalité unique donc tout ce qu'on voit ce sont des formes manifestations des Donc c'est un autre plan métaphysique. Moi, avec le cheikh, on parlait sur ce plan métaphysique et le cheikh comprenait des choses que les grands maîtres comme Ibn Arabi, comme expliquaient. Et le cheikh, quand on parlait, il me disait, ah, Sirin Saliou l'autre jour m'a dit ceci, ceci. Et il résout très facilement, sans difficulté, toutes ces... Euh, énigmes, si on veut dire, qui ont fait obstacle à, l'intelligence de beaucoup de savants, de ce, beaucoup de savants théologiens et même varis qui jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ces choses. Alors que les chers les comprenaient facilement. J'étais étonné. J'ai dit à Céline Saliou, j'ai dit, il m'arrive de parler avec le cher de sujets très subtils de la métaphysique où même les plus grands difficultés. Et le cher, très facilement, il, il les élucide. Il me dit, voilà, j'ai rêvé ceci, Céline m'a dit ceci. Il Alors, euh, Stéphane Salou, il m'a dit, tu sais, celui qui puise son savoir chez les humains n'est pas comme celui qui puise son savoir chez